sama na fi mooy yàlla jàmm rek laa xam vraiment bu ma xamante ak moom léegi presque dix mois laa xamante moom lu ma xam xam soxna si soxna na fi mooy vraiment nitu dëgg la nit ku jub la nitu nga xam ni du nitu caaxaan te vraiment xam na lu mu bëgg te àttan na mun na lu mu def daal xam na ko

vraiment parce que vraiment lu muy def ni dal mom bu doon serigne ñëpp ñi liggéey ni ah kenn du am problème dekk man dal daf ma fajj ci walu njur tok na ben at di sey aw moom aw ma doom te dafa fekk dem na fu nek faju na fu nek faju hôpital du dugg na fu nek ah yalla dogalu wante bu ma ñëwee fii soxna na fi fallu fat weer traitement weer la def ba ma gis gis résultat mooy ëmb jël naa ëmb ci loolu sant naa yàlla ci loolu sant naa yàlla te loolu dafa fekk ni vraiment daal lu ma mën a wax daal mooy yàlla may na ko ndam ci loolu parce que bu may ñëw seeti soxna Fallou Fall dafa fekk ni awma gynécologue sax bu may suivre parce dama dem ba